sous préfecture bu Parcelles Assainies Ibou. waaw Pape Ngagne. waaw waaw Ibou ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. maa lay delloo ziar Pape Ngagne. waaw yaa ngi foofu ci Parcelles Assainies ndax am na buuxante ndax euh, waxtu bi kat mën nañu wax ni une heure de temps presque moom moo ci des euh, te njort nañu ne ay liste yu bëri foofu dina am ci Parcelles Assainies euh, lan nga fa gis ak lan nga ñu mën a wax. waaw jamono ji Pape Ngagne ñu ngi fii ci buntu sous-préfecture bu Parcelles Assainies ni nga ko waxee noonu la wante nag euh, ràññeeguñ fi ab rëcc maanaam nit ñu bëri euh, bi ñu yegsee léegi nag coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dugg nañu léegi seen ñoom ak seen mandataire ngir déposer seen i liste wallu itam ñu ngi may jox ci ay xibaar ne dugg nañ ñoom itam ñu ngi ci biir pour déposer seen i liste wante daal bu weesoo loolu quelques journalistes ngay gis ci buntu bi ak tamit ñoo xamante ne dañuy ñëw rek taxaw pour seetaan wante rës moom euh, Pape Ngagne gisaguñ ko fii euh, te waxtu bi moom ni nga ko waxee lii lu tollu benn waxtu sax desatu si maanaam ay simili moom moo ci des kon daal ñu ngi toogandi di xaar amaan peut-être fii ci kanam ñenn ñi ñu ngi ci dernier réglage yi pour boo doog ñëw fii nii indi déposé seen liste comme ni nga ko waxee liste yi am nañu njort ne dina bëri fii ci Parcelles Assainies xam naa dañ ci yow xëy na fii ak ci kanam Ah, du ñàkk ni nga ko waxee muy rush boobu ñu ñu jànkonte ak moom foofu ci parcelle ndax